proposer aux consommateurs prépayés maanaam déjà boo demee léegi Senelec stratégie bu ciy def man dund naa ko pour mën am compte jamono ji dañ la koy bañal dañ leen a léegi woyofal nga def mais maintenant il faut payer avant de consommer li ngay xoolal amatul gis nga pour man la plus grosse arnaque bu Senelec def ces dernières années c'est cette histoire de Woyofal parce que au début dañu ne woon un ça te permet de contrôler ta consommation c'était beaucoup moins cher loolu c'était valable à un moment donné ce n'est plus valable bi may ñëw nii sama téléphone bi dafa dafa fees xam nga lu tax mu fees un haut cadre de l'administration sénégalaise du ma wax ban ministère la nekk moo ma yónnee quatre-vingt-seize captures d'écran Orange Money yoo xam ne facture am woyofal dafa détraqué il faut que ma def montage bi par infographie pour mun ko poster ci réseau sociaux yi quatre-vingt-seize captures d'écran yoo xam ne yoo xam ne ah Orange Money rek la mu ne ma tayal naa la sax yónnee capture Wave parce que day rechargé par Wave et par Orange Money et loolu c'est entre mai

dañ la koy imposer. deux c'est devenu très cher. et trois ce que j'ai découvert après avoir lancé cette pétition et c'est ma grande sœur Marim Seyni Kane bu RTS moo tax ma découvrir ko. ndekete woyofal boo boo boo boo juumee si rechargement bi c'est fini y a pas de remboursement. mais am na service clientèle waa Sénélec. seen service client lu yow boo juumee nan ngay comment comment on peut mettre en place nga teg benn système de paiement électronique. et y a pas de système d'annulation à l'ère de.

dem na dem na bu cité kër góor gi dem bu parcelle dem bu Pikine dem bu Yoff dem bu Géejawaay tout depuis 10 mois depuis 10 mois remboursé guñ ko et loolu c'est pas normal pire boo juumee euh, nga dugal mu dem si compteur jàmbur seen la xam nga lu ñu ah, ñun de li ñu mën a def mooy mun nañ la jox numéro kooku nga woo nga waxtaan ak moom. yéen ngeen lijjanti ko seen non non defal ndànk. loolu waxuma ne sax incorrection du euh, le caractère incorrect de la chose mais ah il il joue avec nos données man ku joxe sama numéro téléphone Sénélec ñu mu ne Sénélec moom ma ko jox dama lay porter damay porter ah plainte ah ah Sénélec il joue avec nos données personnelles et c'est pas la première fois que Sénélec di def si tu te souviens l'année dernière je pense ou y a quelques mois mhm. da nga xam ne da nga doon sa facture des deux jours wala sax euh, délai bi passé ñu door la ko indi mhm. j'avais fait j'avais fait j'avais mené une petite réseaux sociaux pour dire mais à xam nga lu ma tontu woon la première réponse que j'ai eue avant avant qu'ils se rendent compte de bourde bi ñu def c'était mais vous pouvez dem leen ci suñu partenaires yi mooy ñoom Orange ak Wave nga xool ñaata nga war a fay mais man j'ai pas signé de contrat avec Wave ou Orange du tout c'est-à-dire donc la Sénélec se se se se permet de de donner nos données personnelles mu jox ko des opérateurs privés Wave Wave c'est un moyen de paiement mais c' est pas un démembrement de la Sénélec boo xam ne war na war war naa man bu ma soxla sama facture dem xool foofu non ci lañ commencé yónnee SMS yi Sénélec nee naa leen c' une c' est boo xam ne dafa dajale tellement d' abus parce que mhm. ku jàmmaar la ñoom yaay perte mais est ce pas dû aussi mhm. ak masse salariale bi parce que ñu bari dañu doon je sais pas comment ça se passe mhm. dañ doon wax ni les travailleurs xoolal sama yoon nekku si xoolal nañu recruter Sénégal yépp comme Pape Matar dit man contrat la sekk ak ñoom dañ may jaay ki ma fay leen mais comme dit Pape Matar yow ñoom mun nañ la def n'importe quel abus amoo benn mo nee naa la xoolal lépp luñ xoolal Senelec seen tradition d'abus bi may wax facture estimée lañ commencé on était adolescent suñu parents ñaata yoon lañ jot facture di xataraayu ak rang bu bari facture estimée mm-hmm. nga ñëw c'était devenu une psychose dans les familles boo taalee télé ñu ne la fayee nga ubbi frigo ñu pes la. nga taal lampe fàtte ko moom dañ lay. réfrigérateur sax dañ ko doon dañ ko doon cadenas. ñu jógee foofu ñu ñëw si période euh, délestage délestage ñaata matériel électroménager lañ yàq si kër yi. kan la ñu fay. na am kenn ku ma ne dañ ko fay. amul te période boobu facture dañ doon yokku. Hmm. da nga doon toog 10 heures 12 heures par jour doo am électricité. donc de ce point de vue là mun nañ ne sax Senelec rek def na effort délestage yu yàgg yooyu amatul donc ñu ngi ñu ngi am quelques coupures. c'est la limite c'est voilà c'est pas le plus grave euh, problème que vit la Senelec ñu jógee foofu ñu forcé ñu woyofal bi woyofal bi aujourd'hui mënatoo am compteur classique même des agents de la Senelec nee na ñoom bu ñu demee bëgg compteur classique dañ leen a déggee mais ñoom bu leen neexee ñu am ko parce que fayuñu courant. Hmm. a am. compteur classique mais ñu jege foofu tey ñu indil ñu facture yi Senelec nag dañu yàgg noot askan wi ñëpp noppi mm-hmm. question monopole bu la neexee ñu garder seen monopole parce que jaayoon nañ ko fi Hydro-Québec Ablaye Wade nanguwaat ko y avait trop de problèmes mm-hmm. bu la neexee ñu téye ko mais man li ñu wax loo nañ ko def mm-hmm. loolu laa bëgg alors Oumy si seen nombre de signatures bi may mujjee xool dépassé woon nañ 23000 signatures man sama objectif c'était 10 000 donc euh, loolu moo leen di wan ne. cette question réconcilie vraiment les ah Sénégalais. et que le mal est profond. ñëpp la laal ah alors euh, parce que ñun aussi les consommateurs am nañu fi ay organisations yoo xam ne ñoo ñu fi représenté est-ce que indi nañu seen appui ci li nga xam ne ñun ñëpp on est concerné c'est pas une question da ngay di naan waaw ñoom it ñu laaj seen pétition on est tous concernés. parce que aussi le consommateur a le droit de choisir soit woyofal laajo soit compte classique. xamaluma leen dara man daal tonton Med ma soxna kenn woo na ma samedi di laajte lu xew ma xew. on a discuté un peu et c'est tout mm voilà mais man dégguma benn initiative bu association euh, consumériste yi euh, jël dégguma ko man nag ñëpp laa koy wax parce que Pamata ñu ngi may wax san sànq ma sa intervention bi nga doon def nii euh, les internautes ak les téléspectateurs dégguñu la parce que nga am na problème de son pour ma mu relancer waat la ci baax a baax ci problème électricité bi ñuy noté d'accord Euh, benn consommateur di ko laaj euh, lan moo xew <laughs> ah c'est assez problématique. c'est yaa war a xam déjà lan moo xew parce que en réalité li ñuy dund ci seen lekk à moins que nga bañ a fay facture wala ngay am ay subventions wala nga am bureau euh, ci palais de la république mënoo ko bañ a mënoo ko bañ a yëg li ñuy dund seen lekk en réalité umbi ñëw na ci bu baax a baax mooy ñàkk wet bi ñuy ñàkk wecc askan bi non seulement respecté wuñu yaa ngi wax sànq ba tey ci euh, rang yi nga xamante ni suñu bàyyi dañ ko doon def. Mm-hmm. fajar lañ daan ñu jullee fajar lañ sax am na ñu sax ci buntu seen lañ doon dem. Mm-hmm. bu ñu demee ba midi wala ba 13h ñu fermer seen porte ak benn insolence bu doy waar. Mm-hmm. nga wax dellusiwaat lu lan demee. ñun si ñun ku ñu doon wax yaay xëy suba dem fay di facture xaruma lu ko gën a. <laughs> parce que da xam ne carrément que de perdre la journée là-bas. nga taxaw fa parfois sax doo mujj fay facture bi ci loolu ñu commencé di indi ay factures yoo xamante ni kenn mën ko comprendre dañuy jékki sa doo gis sax ku ñëw xool yow ñaata nga consommé te ñoom à leur niveau am ñu benn possibilité pour xam yow li nga consommé sa kër. Mm-hmm. parce que compteur yi jamono du yoon ay contenu bees yi sax dinañu changer parce que dañoo dugg ci l'ère numérique moo s'est rendu compte que vraiment c'est le contraire euh, li nga xamante ne mooy li ngeen di consommer loolu rek ça veut dire duñu bàyyi woyofal bi sax di wax diisal parce que lii moom <laughs> daanaka diisal la di <laughs> woyofal bi kay moom c'est trop exagéré gis nga Khady est-ce que xam démb si guddi ay une heure du matin laa jot message u un jeune bu dëkk Saint-Louis quartier xaw moon sax quartier boobu am na Médina Course apparemment la tudd Médina mhm. Course nee na dañu dañu dañu ñëw il y a quelques mois euh, imposé leen ñoom ñëpp ñu jël woyofal imposé dañ leen ko imposé. te ñoom auparavant dañoo amoon et ils se sont rendu classique la ñu amoon et ils se sont rendu compte que en fait c' une société boo xam ne day def affaire ak Senelec. moom mhm. moo waroon jaay ses comptes. Mhm. ñu imposé leen ko nee ñoom dañu bañ ñi bañ. seen numéro téléphone dañ koy jox benn daam xam naa seen commercial la mu mu baab la ne la ko war a jël bu dul loolu lii dañ leen ko bi moom dafa voy moom dafa voyagé dafa voyagé ñëw fekk ñu buddi compteur am sampal ko wayafal ah, ah je garde le meilleur pour la fin euh, ça c'était il a sept mois oui. Euh, fan yi ñu indi leen moom moom ak ñëpp ñu indi leen ay factures yu tàng moom boo sama xam nga facture ñaata la mu ngi woyofal de depuis 7 mois depuis 6 7 mois ne ko sa dernière facture compteur classique bi avant ñu koy buddi moom la moom lañ leen imposé nii ñu fay. te mu ngi prépayé. mu ngi prépayé. wax la ñii dañu yàgg am tradition d'abus. Mm-hmm. parce que ñun aussi dañoo. parce que man bi ma bi ma facture. Mm-hmm. je me dis que finalement je suis chanceuse. mais on a on a on a une consoeur euh, qui est dans une radio si si sud bi facture am un million loolu la doon fay pour une radio tu te dis avec le sud euh, la climatisation c'est normal mhm. un million sept cent quatre-vingt-sept mille lañ leen indil boo leen waxee xam nga lu ñu def dañu ñaan moratoire fay 600000 daf ma yónnee moratoire bi semaine dernière may ree ma ne ko xam nga lu ma si métti 600000 yi nu mu bëree yëpp te fayagoo sax e facture bi tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui mhm. envoyé na ma bon de coupure Euh, quelques jours rek léegi da nga fi war a mën a mën a ñëw couper gis nga gis nga aujourd'hui nii bu ñu jógulee ci ci ci ci ci mm-hmm. facture yi nii mm-hmm. weer bi ñu nekk fii septembre octobre moo gën a cher facture bu ñu ñëwee novembre di nga gis di nga gis borom kër bu crise cardiaque moo tax dañ ko war a la spirale là de la hausse boo leen waxee ñu ne la pour cent subvention état bi moo tëb kon kay yokk leen pour cent sama sama sama facture je peux comprendre qu'aujourd'hui peut-être que monsieur Ndiaye dina si dellu si avec la conjoncture mondiale euh, la toutes les crises géopolitiques mhm. que euh, effectivement les coûts de production mën mais boo jëlee 40 pour cent et état bi tëb coût de production yokk ak période de force forte chaleur bi est-ce que ça explique que benn mhm. hausse mhm. c'est du vol organisé alors monsieur Sadibou Ndiaye est-ce que à ce rythme ñu ngi gisee nii on est à quelques mois de la présidentielle euh, bu ñu fàttalee ko euh, magistère Ablaye crise de bokk na ci li nga xamante ne moo gën a yokk colère sénégalais est-ce que mënuñu xalaat aussi mu amaat beneen deuxième vague parce que lii nii umi expliqué fii mm-hmm. dama koy dund danga koy dund